قد قال موسى قادم القديم لمن أوى تقدم القديم قد قال موسى قادم القديم لمن أوى تقدم القديم يا زائلي أنشر بتحسيمي يوم قروجي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 di ñu suivre saa su ci télé bu mag bi macha allah mbégte la ñu am tey ziaraat leen nuyuwaat kenn ku ci nekk ci turam ak santam waaye nuyuwaat tam bu baax a baax mbokk internet yi waaye ki nga xamante ne mooy jëm ji tëdd ji ñu ziar si waat tey ku ngeen ko xam ci Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan ziar ko bu baax a baax jox ko wàccu waayam yëpp waaye seet si waat ko tey bëgg a waxtaanee waat ak moom lenn ci xam-xam rawatina jamono jeeg fii réew mi ak àdduna toll fii tamit. kon sëñ Cheikh Ibrahima ñu ngi lay nuyu salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. bika wa suriyatiha min asaytaani rabbi a'uuzu bika min amasaati sayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yaqduruun. bismillahi rahmaani rahiim laa qawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil aziim. Baay Taala ñu ngi lay fay nuyoo. Euh, di nuyu mboolem téléspectateurs yi ñuy suivre fii ci réewum senegal ak bitim réew fépp ci international bi ñu ngi leen di nuyu di leen fay nuyoo di leen wax aleykum salaam ci nuyoo bu am solo ba euh, waxtu wi rek dugg ci liggéey bi ndax euh, tey jii moom wax dëgg yàlla am na bariwaan laaj yu ñu bëgg laaj yoo bëgg nañ leen di nuyu ak leeral askan wi teewoon na ko. fi ñu koy tàmbalee rek mooy dañoo gis ci réew mi jamono bi ñu toll coowal suuf bëri fi lool lëmbe réew mi euh, ñu bëggoon xam coowal suuf yan conséquence la mën a indil réew mi wala yan conséquence la mën a indil coowal suuf si am ci réew mi euh, dégg naa ko comme ni ko déggee. yàlla def na itam Euh, ñi njabootee réew mi ci laa bokk. Hmm. bi ma ko dégloo def naa ci ay gëstu ci ay kilifa xam fu ci dëgg féete. Hmm. ndax euh, suuf dafa am danse yu ci nekk yoo xam ni hmm. bu sa coow xasee ba am rek ñi ko seq yëpp kenn mucc ci ñi seq coow li seq suuf si kenn mucc ci ki am dëgg muccul ki amul dëgg muccul loolu nag euh, soo ko déggee tey kilifa te xam ci dara euh, doo seetaan euh, su ko defee nag coowal suuf moom ñaari parti yi koy xëccoo moom li ñu li ñu dugal ci seen bopp mooy na leen leer ni ñoom jëm nañ ci ak gàtt fan gàtt fan ndax booy xëccoo suuf te moomoo suuf sax saxal ni yaa ko moom ci kanamu kilifa yépp buñ la ko joxee te moomoo ko du yàgg nga faatu boo ko nangoo ci ay loxoy nit te moomoo ko ëpp leenu làmmiñ rëy làmmiñ ba nangu ko jàppal ni doo yàgg ak suuf si te faatu ko kon danger bu rëy moo nekk ci coowal suuf si am ci réew mi yépp waxuma nag coowal seen suuf kese ndax fi mu toll nii réew mi coowuñu benn suuf kese du soo du suufus dëkk bi rek la ñu coow de bata imi jaasit nee na waa réew mi dañuy lekk suuf te kilifa yi la ko jiiñ fu ñu gis lekk ko te loolaat du yoon képp koo xam ni nag yaa ngi ci suuf soo xam ni moomeelug senegal la moomeelug askan wi yépp la nga bëgg leen a not ci ay pexe ki kéet ak ay tappale ba jël suuf sa ci ñoom duñ la bàyyeeg suuf si doo ko jëriñoo man nag euh, sama position tax duma mën a gaaw a wax ci yenn yi waaye daal lu wóoradi ci biir réew mi ñuy seetaan nit ñi ñuy xëccoo suuf si di ca ngiraw xiiroo ko ŋaayoo te indilu leen lu dul musiba yaa ngi dégg nit nag mën naa tromper ku ne yonent bi àtt na ñaar ñoo xam ni dañu kenn ki yow mii yaa tooñ te moom lañ tooñ de mu àtte ba pare waa waatalaat ko ci alxuraani yàlla ji ni ko man moom tooñu ma yaa ma ko wax nag xam ma nu xam ma nu ma lay def ndax yow la yàlla yónni te ruusee naa la loolu waaye kii moom tooñ ma yoon tamit ni gees ki ci des ni ko xam ma lu ma la mën a jox waaye bu dee dëgg gi moomoo ko moom sawara dong la tib jox la waajee door a geesu ni ko nag dox dëgg dama ko ëpp làmmiñ waaye moom maa ko tooñ lu mel noonu nag su amee ci réew mi askan wi seetaan fa dossier yi mujj ñuy àtte muy juge yi ñooñu dama leen di teel a dimbali ndax gis nga boo àttee lu dul dëgg yow mi ko àtt dalay topp waaye sag njaboot da lay topp da leen di topp moo tax ñoom nañ ci teey bu baax te bu dossier yi accès ci ñoom ñu kade ko teg ko ne leeral ko ci yoon ngir musal seen bopp musal seenu njaboot ki njiite réew mi nag di njiitu réew mi lii nii xew ci réew mi ay signes danger la ci côté na ci àddu ci ni kilifa di àddoo ci biiru njabootam bu ci coow ci suufal coowal suuf yeeg yooyu ci réew mi. macha allah jërëjëf si ci leeral euh, yoo xam ne mosoon nañu cee sax ba nga loo ma waxoon suuf sax moo tax ma indiwaat coowal suuf si ni mu ni mu ni ci réew mi waaye itam bokk na ci fi mu toll nii seen bi dañu faral di dégg. Euh, li li li li tubaab di wax naan pacte maanaam nit koo xam ne que tey jii maanaam li ma ko mën a misaale mooy ku judd fekk ay waajuram wala askanam yu mu bokk maanaam signé woon tey jii lu mel ni franc-maçon lu mel ni ay jinne wala yu mel noonu nga xamante ni dem na ba moom yóbbuwu ci bopp waaye dafa judd fekk askan yu mu bokk ñëpp ne ca loolee dem ba di ko yàqal di ko yàqal mënutu la taxawal dara kookee bu bëggee mucc bëgg génn ci loolee noonu ngir mën a taxawal àdduna naka la euh, lu ñuy signé la ak ay junne sëriñi njabarkat yi def fitis euh, dinañ koy defal nit ci moo xam day xëccoo ay ay ay àdduna moo xam day yóotu alal wala moo xam day xëccoo lu koy indil mbooloo. wala day xëccoo ay réew ak yooyu yooyu gars yi ci dugg pour signer pacte ak loolu waaye lu ci mën a am daal xam-xamu sayaatin lay doon yaa ngi dégg xam-xam yooyu nag boo ci xasee ba dugg lan mënu la cee génne lu dul xam-xam bu leer yombut a génn de neex naa dugg nag waaye yombut a génn ndax génn gi moo gën a jafe dugg bi dugg bi hmm. waaw ndax am na ci ñoo xam ni pacte yi bala ngaa dugg signature bi ngay signé sëb lay doon allahu akbar am nag looy dugg ñu ne dañu dagg sa baaraam nga door a dugg hmm. wala dañuy génn sa deret jii nga door a dugg hmm. wala dañuy faat sa waajur nga door a dugg nga nangu loolu ba dugg boo ciy génn yow mi ci nekk sax te dugaloo ci sa woon sa woon sa bopp te bëgg ciy génn. Mhm. boo ciy génn du yombee noonu ci yow. faw que ku maîtriser la seere loolu moo xam bu dee bu junne bi la. Mhm. bu dee njabarkat yi am na fuñ yem ñoom ci seen xam-xami njabar yooyu. Mhm. am na foo jëm ak ñoom ci leer gu yàlla dañuy wàññeeku dootuñu dem. jamono boo ak génn ci sëriñ bu àgg foofu ci dayoo. moo la ci mën a dimbali. waaye ñooñu bokkuñu ak maladie yi ñuy soigné nii rek nga xam ni ku dul médecin sax mën na laa wax na la lee faj bopp bi metti nga dem jënd garab gi naan wér. Mm-hmm. ndax yooyu day yu terre à mm-hmm. waaye dafa nag am aji feebar ji fu muy toll. Mm-hmm. dañ naan il faut médecin chef bi nga xam ni moo spécialisé ci domaine bi moo koy opéré. ñooñu ay cas urgence la ñu nekk ci domaine boobu. sëriñ dëgg boo xam ne dafa am xam-xam ci li muy def. te ànd ci ndigalul suñ borom mi ko sàkk gannaaw ba jëf jooju amee. Mm-hmm. kooko ci mën a génne ñooñu. yaa ngi dégg. Mm-hmm. Euh, lu am lu yaatu la nag loo xam ni. genn wàll nit ñi ñi ngi dundee noonu. seeni alal di leen wan ginnaaw te ñoom defuñu lu ko yóbbu xamuñu ko. wala ñu gis ni seeni yaram tawat da cee ne joo xam ni diireb tawat bi nit du tawatee noonu parce que nit di tawatam daa am fa mu yem. li nga feebar yi nga gis mu continuer jëm ak boppam dix ans trente ans ku ci feebarati feebar bi ëpp quarante cinq jours taxawal. Hmm? du feebaru kese maa la ko wax feebar bu naturel. Hmm. juróom-ñaari fan ko weesu. lu ci topp naturelatul. Hmm. bu douleur bi continuer seetil foo jëm boo xamul ñëwul man dinaa la dimbali. te ah, <laughs> bul dégloo te kenn nag ko laan nii nii nee naa amul lu bàyyoowul ci yàlla waaye amul dul dañ. Hmm. day wax wala dégg wax bi ku tabbi ci yooyu daal. tam leer dugaloo ci sa bopp. waaye nattoo la ciy dugal ak. ñoo xam ni ci jaahilee lañ la juree dugal la ci mm-hmm. su boobaa boo ci bëggee génn sa bopp boo dajeeg borom xam-xam bu xam dara mm-hmm. mën la ci dimbali ba taala macha allah euh, cheikh bi wax nga ko léegi nii fi mu ne daanaka ci bi xeeti feebar euh, bu warta romb bu naturel boog warta romb juróom-ñaari fan mais yi dañoo gis ci jamono dafa bëri ñoo xamante ni tawat day nekk seen seen yaram wa maanaam nga xamante ni euh, ànd ak ñu dem ci ci dem hôpital dem fu ne ñu def analyse def diagnostic def lu ne du ñu gis tawat ji ci ñoom ñooñu naka lañ mën a dimbalikoo ko ci àdduna seex bi fi bu amee lu nekk ci yow hmm. ni nga tëdd hmm. mënulaa tëral hmm. bu tëddee doo ko noppal <laughs> wala déggoo bi bu baax <laughs> amee lu nekk ci yow ni siiw nga tëdd mënulaa tëral. Hmm. yow soo tëddee doo ko noppal. maanaam nit day feebar feebar bu jóge ci yàlla. Hmm. li nekkoon ci moom yeewuwaale fa nag moom waale ko téye ko fa rek. si xam ne tëddaayu feebar ba jeex na bu yàgg. Hmm. leneen lam tëdd lépp bagaas la. feebar nag bala nga koo mën a faj yow mi koy faj ki feebar ci boppam. li koy metti dalay metti yow sëriñ bi. dëgg wax bi de. baataa mm-hmm. la ñëw nga. Mm-hmm. yaag sa feebar. Mm-hmm. sa bët bii di metti bala ma koo mën a faj. bët bi métti gi muy metti dinaa ko yëg sama bët bii ba xam métti bi méttitu lu doon am ci xam-xam bu wér door koo mën a faj. kon daal métti moom bu bu ko koy faj moom bu yëgut métti bi mënu koo saafara moom. Ah, waaw <laughs> loo xamul noo koy faje <laughs> dégg nga wax bi dégg nga wax dama ne la ki am ndigalul faj di faj. Mm-hmm. wala man boog laax ñi may faj. Mm-hmm. seen mettitu feebar. Mm-hmm. bu ñu xasee ba ñëw ba ma connecté wu ci man lay gën a metti ñoom. feebar bi leen dal. ci nekkee di ci man lay gën a metti ñoom. wala ngaa soowee kenn yanu li war a yanu. dégg naa pire de. li wax bi. loolooy yoonu xaqiqa muhammadiya yonent bi ndaxte moo dimbali nit ñi seeni lor la yenu day bëgg a dimbali nit seen kooku bi yanam xamoo lu mu yanu ni yaa koy dimbali waxi kese la loolu amul njëriñ baytaana dégg nga wax bi ñi nga xam nag feebar nañ médecin yi vérifié ni gisatuñ dara dañ koo munta gis mm-hmm. nee naa la nit nit ni moom li muy gis ci moom lu néew la waaw su ngeen bëggee dimbali seen bopp nag mhm. fii mën leen jóg leen fi di ngeen fi jóg de di fekk mbir mi fi ne mhm. ngeen gis ko fa ndax foofu lañ koy gisee fii ngeen toog tus ne ko fi mën ngeen fee yàgg nag waaye du ngeen fi gisee dara dégg nga wax boobu mhm. ma ne dégg nga wax boobu bu baax waaw ah, kon wax la continué la. sarkar la jërëjëf sëriñ euh, Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan macha allah du ma génn foofu noonu xam naa ne question bu mujj bi may bëgg a dugal sax foofa lay daal di dabu si waat ndaxte am suma waajoo xam ne saan moom dañu koo njabar maanaam ba ba jekk ko xaw ma kortu lañ ko sànni xaw ma maanaam daal nga xamante ni fi mu wax dëgg yàlla indiwaat na ci sama xel ci biir jotaay bi nit ki nga xam ne dañ ko njabar ba jàpp ko. Mhm. naka nga ko mën a dimbale sëñ kan moo ko war a mën a dimbali tam ku mel noonu. xam nga njabar moom xam-xamu njëkk yu njabar yi nga xam ni junne yéefar yi mm-hmm. ak niti yéefar ya ca njabootu Suleymaan ñoo ko njëkk a xam mm-hmm. ñoom it xëyuñu for ko ci mbedd mi nii de fekk ay fooy tego fa comme ni ñuy defee nii senegal damaa for lii sama bàyyi ko yoroon kamaatra yi déedéet mm-hmm. xam-xamu njabar baytaala dafa existé ñaari malaayika ñoo wàcc ci kaw suuf sii ni cëpp jàngal ko junne yéefar yi ak niti yéefar yi dem seen yoon alquran indi ko muy laaya junni ni ni dàng boo door a dalum njàng sax dinga ko jàng dégg wax bi xaaruuta mm-hmm. ak maaruuta ñoo fi jàngale xeeti njabar yooyu te dañ leen a waxoon nit ñeeg junne yi bañ leen koy jàngal lii mm-hmm. seen yi rek ngeen ci nekkee dong la leen indil jaxase seen àdduna mm-hmm. perturbe tegante ay nattu rayante nangam nangam gaa nag ñoo ngi laaj lu tax suñ boroom ñu ñu sàkk jël xam-xam boobu junne yi xam ko wala malaayika yi xam ko loolu kenn du ko laaj yàlla lim def lépp boo ko bëggee laaj doo fi jóg de waaw yàlla moo bind àjjana muy bànneexu kese bind sawara muy coonoy kese lu tax mu bind ko hmm? yàlla moo bind wér gi yaram. Mhm. muy noflaay kese. Mhm. mu bind feebar. Mhm. muy coonob kese. lu tax mu bind feebar bi. yàllaay fekk imaam buy jiite dëkk ñépp baase wu ci moom. mu teg ko tawat ba du jug mën a jug fi mën a toog dem jiite ji nit ñi. mu fekk koo xam ni jëriñul dëkk ba dara mu def ci wér gu yaram goo xam ne dalay romb di dawi. lu tax yàlla def loolu. Hmm? ndax yàlla dul yii ñun fii ñu yem ba pare bëgg faa yemale yàlla moo dul sotti dégg wax bi mhm. kott nag bokk na ci ñi muy dal mooy way sàggan yi mhm. foo fekk man kuñ may indil nga feebar ñan sanri feebar yu ñàkk fayda yooyu nga xam ni kulli ak yembaree tax nga feebar ko boo ñëwee bala ma laa faj dinaa la yedd ba ngay bëgg a dee bay tax <laughs> feebar yooyu daal am yambar li ngay wax doy na waar <laughs> ku ñàkk jom sëñ bi ay kortak yi nit a xamoon nu demee sëñ bi dama ne la feebaru kortak ay njibar géem a jàpp ay xoole ba dof yooyu am ñambar lay dal wala dégg wax bi <laughs> boo xamul foo jëm hmm. ci ngay dajeeg yooyu hmm. ndax da wundeel ba dajeeg ñoom hmm. dégg wax bi déggoo wax bi de. walaay maa dégg. ñu <laughs> wëndeelu moom xamoo foo jëm rek moo tax yooyu ngay ngay dale. waaw yi nga xam ni am na. Mm-hmm. ñu ñu koy moytu. Mm-hmm. waxuma nga moytu ko waaye yow da war a weesu moytu yooyu ba sa njaboot sax bu leen dalee da naan erreur la waaye ñii war nañ ko weesu. Mm-hmm. Hmm? du xam-xam yoo xam ni dafa naqaree défendre. naqariwutu mucc. xam-xam bi nag dafa neexul te metti waaye du xam-xamu tus da nga wax bi ay mm-hmm. korte yi yooyu moom mm-hmm. amuñu solo waaye daal mm-hmm. ku sàgganul xam fi nga jëm yooyu moom muccal nga ci sa bopp laataa kenn ab sëriñ nag moo ngi médecin yam des fois boo ko indilee góomu kese du ci sawar ndax day xam ne lii alcool dong koy faj. ñoom corte yooyu ñoom ñoo ngi noonu ñoom. Cheikh Ibrahima si si si Cheikh Ibrahima oyofal nga ay corte yi di. waaw waaw waaw c'est normal waaye man man oyoful ci man man oyoful ci man wax dëgg yàlla. kon sama gars. waaw ndax sama sama waa ji naa ne coono ya mu nekkee nii. donc boo ko oyofalee man dana ma. <laughs> waaw du ma yéem ci yow waaye moom dana ma yéem ci moom. waa ndax xam naa ne man bu ma ko doon faj. Mm-hmm. Fatiha du ma jël lépp. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kese hmm. dama koy xool moom ak keneen ko am kort ma leen ko waaye bu dee moom doog moom saafara si bu ma ko bindee damay naan genn wàll gi jox ko genn wàll gi di fajar tey dégg wala kay moo lay wala dégg nga <laughs> daal moom iyyaka na'budu bi laa xaaj li ma ciy def ci saafara hmm. naan genn wàll gi jox ko genn wàll gi ndax genn gi ëpp na ci benn kort ci yàlla lu leer nga wax. waaw baax na ñu jàll. macha allah jërëjëf euh, ci leeral bu am solo boobu moom xam naa ni moom yegg kër gaatee moom fajar ñu yeesi la moom incha allah wu soobee yàlla euh, bokk na ci euh, li nga xamante ni mooy damay dégg ci ñu bare bare ñuy wax raw raw rawxaan rawxaan rawxaan sëñ bi ma bëgg nga wax ñu lan mooy raw rawxaan ak naka la nga ko mën a mandarga wala misaal ba ñu xam ko parce que coowal rawxaan daf bëri ku ne naan rawxaan bi rawxaan bi sëriñ sëpp rawxaan la ñuy waxtaanee. nun ñi ñu koy wax nag fi ne noonu xamoon luy rawaxaan bëgg na noo xam melo bi ak mooy la rawaxaan day xam naa ne xama feneen de waaye réew mii ñuy wax Sénégal bu mu leer moo réew mii ñuy wax Sénégal bu mhm. ma la fi leeralul luy rawaxaan ba nga xam ko yow mhm. du la leer mhm. ndax lim doon amul kenn ku ko bëgg a def lool jàngkat yi jàng téere yëpp jàng fànn yëpp ñoom la gën a ump dégg nga wax bi dama la jàngkat yi jàng téere yëpp jàng fànn yëpp rawaan ci boppam ñoom la gën a ump rawxaan ak leeru yàlla la guy bàyyeekoo ci alquran mhm. guy bàyyeekoo ci turu yàlla guy bàyyeekoo ci jëf ju baax mhm. di dikkee doomu aadama bi melo yuy soppeeku yu mën a màndargal mhm. cosaanul rawxaan nag amul différence ak malaayika yii leer gi ci malaayika mhm. ba mën a soppeeku ci luy ànd ak nit adapté ca lam soxla mhm. ba dellu doonaat leer di malaayika ak rawxaan amuñu wuute alquran jii boo ko taxoo saxoo ko wala tur yàlla yii ay malaayika dinañ la dikkee yoo xam ni ci ndigalu yàlla ñu lay dikkee kasaalika ruuxaan ruuxaan nag turla la rek wu ñuy jox leer googee ndax leer googu ne ci malaayika yi ak leer la rek waaye dañ ko jox turu malaayika leer googu ci ruuxaan bi ak leer la rek waaye dañ ko jox turu ruuxaan mm-hmm. leer na mm-hmm. dama ne leer naa ma ngoog ku ko bëgg a xam xam ci lii ku ci weesu lii doo ko mos a xam mais diggante rawxaan ak ak sirru sirru sirru la sirru mooy luñ nëbb rek mm-hmm. du luy dund ruuxaan nag daa mën a doon luy dund di dund diir bi nga ko soxlaa ci li nga koy dundale muy tur yàlla wi wala alquran ji wala salaatu ala nabi bi wala jëf ju baax ji sarxe yi ngay sarxe hmm. nit kuy sarxe rawxaan yi ànd ak yow lu lay lor ñu taxaw ci ak leer la hmm. keneen ku ko def lu dul leer ci adduna bi hmm. xamul lim lay wax ba ko fa te topp lii ma la wax ndax lu wér la. macha allah jërëjëf sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan leeral boobu amati na solo macha allah rabbi bokk na ci rek xanaa fi mu ne bi ma bëgg dugg tam mooy ndax tey jii yell na ci ab jullit mu dem ji ñaanduju ngir yokk am amam wala wërsëg. ah loolu de moom gaa yi ñuy wax ay ibaadu ñoom ñoo ci indi ixtilaaf waaye nag man ka roy te yàlla royloo ñu ko ñun jullit ñëpp muy yonent bi moom la waa marché ba ñëwoon ko ñun dañuy ñaan suñ njaay mi dox délégation nit ñu njëkk a mm-hmm. ñoom kaaba ga lañ fàqee ñoom <laughs> te wutuwuñ keneen nit <laughs> demuñ Seydina Alin demuñ Seydina Bakar demuñ ci Xaalid ibn Walid demuñ Seydina Amsa demuñ ci keneen kuy guddal jël bi xam nga fu ñu jëm mm-hmm. ci yonent bi lañ ñëw toog lañ ko wax mooy lii waa Sénégal da wax bi ñu ñaan marché bi daa doxul mm-hmm. njëg mi léegi day tardé matériel bu ñëwee dañuy am problème mu jaay ko xaalis yomb tuñu mm-hmm. ñu bëggoon lu ñu ko mën a yombalal loo xam ni dañ ciy jàpp di ci ñaan yàlla mm-hmm. mu yombalal ñu ñun suñ jaay mii di jar ñuy am mm-hmm. ñooñ luñ bëggoon yokk seen xam am yokk seen am wax dëgg yàlla yonent bi day yëkkati aw saaru alquran mm-hmm. ci saasa ni leen deneen ko jàng wul waxtu nag wuñ koy jàng deneen ko jàng guddi dina yokk seeni wërsëg mooy saaru wàqiya wàqiya yaa ngi dégg gars yi ba ñu yóbboo seenu saar di ko jàng guddi yëmul foofu de ñee dox la ca marché ba ñoomi it dañoo ànd ñoom di ko jàng guddi dégg nga bi mhm. di seen wërsëg it ñoom di gën a yokk kon lu yokk wërsëg am na mhm. ci ñaan mhm. alxuraan léegi nag ñu delluwaat deuxième tour ci yonent bi ñëw ni ko. ñun kat affaire bi ñu ngi koy jàng. ñi ngi mos néew ñu ko gisuñu de ñi ngi mos affaire baa ngi ñëw ñi ngi mos waaye gaay ya fa nekk tamit ñi ngay gën a mos ndax dañoo bokk ak ñun njàng mi di ko jàng yonent bi leen noonu la da ngeen ñaan ngir bëgg a yéen a ngi mos ñoom ñaan ko ngir yokk ña ngay yokk yàlla ñëpp la yokk wallaay la yokk ku am ñàkk dem leen loolu loolu loolu moo amul kon ku ñaan am. ndeysaan ku ñaan lu am. Mm-hmm. ku ñaan nag koo xam ne xam na nañuy ñaanee. Mm-hmm. moo la mën a ñaanal nga am. Mm-hmm. waaye ku la tënewul nga koy ñaanloo dara doo ko am. loolu loolu maa la ko ci leeral man ci wàllu ñaan. macha allah amatee na solo. secret barko. da ñu cee mos a jun. ma bëggoon nga mosal ñu ci tey. baraxun moom euh, day ay ñaan yoo xam ni ay junne yu nekk ay jullit ñoo tëggoon cosaanul ñaan googu dafa am ay ñaan yu bàyyeekoo ci yonent bi ngir nit ñi mm-hmm. yooyu jullit ñëpp la concerné mm-hmm. am ay ñaan yu bàyyeekoo ci nitu yàlla yi mhm. ngir nit ñi mhm. ñooñ ñu wékku ci ñoom ñëpp te soxla ñaan gi mën nañ cee ñaanee noonu la amee nag ay awliya yoo xam ni junne lañ dañoo ñëwoon ci yonent bi tagg ko ay tagg ñaanee ay bayit yàlla nangu ñaan googu barkeel ñaan gi ku ci ñaan yàlla nangu ñaan googu barut ci secret yooyu la jóge mhm. yaa ngi dégg junne yi nga xam ne nag ñoom dañoo wékku woon ci junne jooju nga xam ni gannaaw ba mu tuubee dafa jël boppam tuddee ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi dégg mm-hmm. mu jiite woon nag kuréel gu mag goog nga xam ni ñoo ñëwoon jébbalu ci yonent bi sallallahu alayhi mm-hmm. barkeem ak bagaasam yi nga xam ni moom la yoroon mm-hmm. moom la tasaare woon nag ci ay taalibe junneem ñu koy doxal mooy barxut nit ñi nga xam ne nag daan nañ jëflanteeg junne yi wékkoon ci barawut ci jamono booba noonu mhm. ñoom dañ daan amante ak ak ñoom di jëflanteeg ñoom ci wàllu secret mu nekkoon secret buy dox li tax nag muy lu concerne monde bi actuellement mhm. euh, rawatina ñi yëngu ci wàllu commerce ak wàllu xaalis bu yokk ak yooyu mhm. daanaka dafay dox ci doole yi première matière yi tënk àdduna bi nit yàlla yi dëppoon nañ ci ni barxut jëmmi secret la boo xam ni ñaan yi ci nekk soo ko dee ñaanee mhm. am réew bu pétrole bi sori woon wala gaz bi sori wala or bi sori wala jamaa bi sori bu ñu fay jàng barxut bu yàggee da koy xëcc ba génn ko ci biti junni yee koy def ndax seen ponkal mi maanaam ma mi ngi mel ni fii rek réew mi rek chef de serre Baye Fall yëngu mhm. wate suñ tubaab mur yi xàccu mhm. da yombal la nga soxla ca ñoom noonu la barxut boo laalee bagage junni yee tàccu da yombal lañ soxla ca Mouhamad Daloun tubarkalla dégg bi mhm. ab secret la mhm. waaye barawut nag ah boo demee ba ak yow mhm. ci li nga li la soxal yitteel la laayab alxuraan sax doo ko tëkkal doo ko tëkkalee juróom-ñeenti téeméeri milliards yi way barawut hmm. est wax be hmm. dama ne dégg wax be dolli ma boo demee ba yeewu yow ci li nga ne hmm. laayab alxuraan benn laaya dootoo ko tëkkaleeg juróomi milliards yi way barxut benn laay alxuraan du ma ko tëkkaleeg juróomi milliards yi way barxut waaw <laughs> dégg naa la donte barxutey génn or beeg laay alxuraan yamut ak lu yàlla bind kon fi neex na waaw nañam foofu ci barxut ndax am na yeneen am dara bu am solo boobu tubaarkàlla dégg naa la fi euh, euh, bokk na ci fi ma dugg bëgg a dugg itam mooy ci suñu jotaay yi weesu daf ci am bés nga nga ni yàlla suñu borom subhanahu wa taala bëri na ci secret yi li ci ëpp loo xamante ni ci ndox la ko def ba bëggoon xam woon sax lu lu ci ëpp lépp laa la la la la naar ba waxaloon sëñ Tuubaa <laughs> ñëw ni ko <laughs> Amadou yow dama dégg ñu ni euh, xasida gi di jëwartu da koo bind ni. ku ko mokkal euh, sa yaram araamal araamal na sawara dangay dem àjjana sa taalibe nag Ahmadu dañu xir man bi ko déggee rek laa xam ne lii waxoo ko mu ñëw nag doon doon la xamal ne ñu ngi koy wax si nit ñaa ngi wax loolu ah man sax dama ko dégg daan insha allahu xanaa bu ci yàlla àndee <laughs> la loolu di am sëñ Tuubaa daan ni ko ñoom dañu dañ dañoo wax sax lu ma leen waxul ndax seen xër dama ne man waxuma xasida gi lépp waaw benn bayit laa la wax ni ku ko ci mokkal muy bayit boo ko commencé muy jëwatu donc ko ko mokkal yow da nga dem àjjana bi ci topp insha allah nga wax mooy bu soobee yàlla soob na yàlla ba pare def ko xat fa allah xat sa allah neex na yàlla te soob na ko kon loolu loolu lay wax man waxuma la ni la ndox ci la yàlla amal lii bàyyi lii dama na ci la amal lépp yaa ngi dégg suñ borom nag dafa ni ci ndox laa amal mbooleem lu am ci adduna bi cosaan la ndox la loolu it na leer bi ci topp feebar boo gis ci kaw suuf lu mu tar tar la koy faj génnul ndox maa la jox secret bopp boo gisee nag may waxtaanee nii gars yi laa bëgg ñu gis ji da nga bi feebar bi gën a tar ci àdduna yàlla teg ko ab yonant mbooleem boroom xam-xam yi nekkoon ci àdduna kenn mënu ko cee faj ba mu koy faj dafa ne ko irkut bi rijlika haza muxtasalun bardun wasarab dafa këdd tànkam ci ci suuf si ndox génn mu sangoo ko wér plak feebaraatul ba ni faatoo feebar boobu moom mboolem feebar yi alxuraan nettali bu ci mel noonu doo ko déggati yow ci jamono kon ndox ci leela amal mbindaafon yi montagne yeeg nit ñi yeeg junni yeeg géej yeeg lépp loo dégg laa la wax loola am bañ man ko identifier ca lam am la ca suufam ndox la bu dégg-dégg gii nag gars yi di dégg nga bëgg cee yam dégg nit ñi ci ban lañ leen bind rek ban ba lu doon junne ci sawara sawara sa lu doon hmm? sawara su doon lépp code la bu ñëpp dee jël kenn ku ne kiy jël di yóbbu te xamoo li nga yóbbu lu mu doon na joxe lu yem <laughs> dégg nga wax bi. ngóor si jël na si sax daa daa a sonn moom it nañ ko <laughs> yërëm ci jotaay bi. tubarkàlla sëñ Cheikh Ibrahima. Mhm. <laughs> amati na solo loolu macha allah rabbi tubarkàlla. Mhm. Euh, bokk na ci fi mu nii nag moom xam naa ñaari ciy des moom benn bi moom dafa jëm ci tey jii ni ma ko xalaatale mooy. nguur ñu xool ni nguur yi ci àdduna bi yëpp lëj lëj wër leen tekki lan nga leen di digal ba ñu mën a mucc ñi nga xam ne ñooy président yeeg maanaam mboolem ñi nga xam ne dañoo ne ci bopp nguur yi rek. nguur daal fii ci réew mi moom ku nekk buur nekk président moo xam nga ji yilifi nit. la sëñ Saliou dig njiitu réew ma ku ko ci weesoog yow dalay nax dalay jay la sëñ Saliou Mbàkke diglu woon ku ko ci weesoo buur yaa ngi koy nax yaa ngi koy jay damay suturaal nag président ba waaye ka tàllaloon sëñ Saliou loxo yi ni ko dama bëgg nga ñaanal ma ci sama nguur gi yàlla téel ma ko mu ne ko yàlla téye na ko pare lu ma ciy ñaan man naa laa xamal nag loo ci xamul maa ngi lay xamal ne la sa nguur gii biñ la koy jox dañ laa tàccoo kenn ku nekk tàcc ñu jox la ko buñ koy jël dañuy yuuxu kenn ku ne yuuxu ñu jot ci ñu jël ko loolu laa ci xam la sëñ Saliou nit keneen ko ci xam xamoo ci lu la leer nguur buñ la koy jox dañ lay tàcc fal la boo sàgganee buñ lay folli dañ lay yuuxoo xeer yeeg mool yéeg puna yeeg <laughs> boo amee fit nag da yéex a daw <laughs> waaye gars yi la téye nu ne waaye ci daw rek nga jëm bàytaa la <laughs> loolu rek kay mbirum nguur nguur yàggul dañ koy bàyyi xel macha xanaa rek fi ñu fi ñuy daanele fi ñuy jeexale jotaay bi rek tey jeex naa mooy dañoo jotaay nga wax ma ni ma ci jotaay yi weesu rek ne ma mbooleem mbooleem jinne yi ci kaw suuf nit ñi leen ëpp doole te loolu dafa mel ni dafa indi politique. waaw parce que nit ñi dafa am boroom xam-xam yu leen naxee baatub jinn mooy xam-xamu jinn yooyu. bëgg leen wan doole yuy jóge ci junne yi ni leen ñoom dañoo yor ay junne yaa dégg tax masala miy leeral diggante nit ak junne jàngalekat yi duñ ko waxtaane waaye junne yi ñoog seeni xam-xam ak seeni buur ñoom ñépp daje nañ ci àdduna bi nekk fi benn nit mennam yonente yàlla Souleymane not leen leen liggéeyloo travaux forcés fanweeri at mënuñ ci ñaar dërëm ñoom ñëpp kenn nit laa wax de waxuma nit ñëpp Souleymane dafa am benn boroom xam-xam boo xam ni aw fasu naaru góoram la yoroon junni ji ñëw ci kër ga jàpp geenu fas wa di ca fo di ko létt di ca fo di ko létt ba geen ga jaxasoo ràbbaloo ba ni rappaj waa ji ñëw kalaame ko Souleymane ni ko lii di junne ñoo ñëw ci man démb def ma ko bala maa jëflanteeg ñoom nag comme yaay suñu kilifa ñun nit ñi dama la koy leeral rek nga wax ak ñoom bëgguma jëflanteeg ñoom yaa ngi dégg mm-hmm. Souleymane woo benn picc ba ñuy wax tan ni ko tiimal adduna bi fu junne na nga woon ma ko mu ñëw fii te nga woo leen benn yoon bu ñaar bu bu leen woowoo di woowaat ak yooyu yow waxal ni leen wuy leen Souleymane yéen junne yi ñëw tana jóg woowi leen bi muy ñëw ci Souleymane laata ma wax si fekk na junne ju yàlla bind nga wër Souleymane toog Souleymane xool junni yi ba gis junni ji ko def mënu ko jugal yow bii yaa ko def néew fa di laaj naan kan moo ko ci def day na xool ñoom ñëpp nekk junni ji ko def jugal nga den li nga def bi junni ji jógee fas wi ci boppam moo ñaan Suleymaan ni ko man su ma sañoon nga defal ma ci la yàlla may junni yii dootuñu sax man ñëw ci man ba may bay létt sama genn Suleymaan ni ko may naa la ko junni ji fi mu taxaw jum ci fas wi mënut la dem dama nit bu dee lam may moo dox ci junne diggante junne yeeg mala yi asuntuma yàlla mi maye li may nit Suleymaan mii nit du yàlla am yonent bu yàlla yónni la bu dee lim may mala moo tax diggante mala mala yi ak junne ji junne ji amatul accès ci mala wi ci fas wi asuntuma nag yàlla mi may nit lim may nit dégg nga wax bi côté yooyu li ma ci waral leeral dafa bari waaye dama daal nit ku sàggan sax junni mësul nu wóoru koo mënal dara ësantuma laa nag nit koo xam ni mat na nit ci ñi jëm ci xibla bi la bokk man nag sama waxtaan dafa am ñu may waxal ci nit ñi ndax ñi xam laay waxal ñi xamul nag ñoom wax naa la kuy taxawaalu jëmoo fenn lu la dal yàgg teg sa bopp waaye doole ji ñu jox junne yi ci àdduna bi rawatina fii Sénégal amuñu ko xam-xam bii ñu leen wékk xamuñu ko junne yi xamuñu fi luñ xamul mënuñu fi luñ mënul amuñu fi doole juñ amul te kuñ fi dugg dañ ko génne junne ju fi def lu jar yarit ñun ñi ñoo la yar man da xam ma beneen réew waaye fii yaa ngi dégg Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan fii ci senegaal rabak junneeg boroom xam-xam bu yaree di kook yëpp laa ci yemale ku fi def lu mu wut def fii ci réew mi man dinaa la yar fii ak faatooguma wala moo ko ci ci ci ci borom junni junni yi kese de nit ku fi yor sab xam-xam it fexe ba commencé di di perturber ka déranger di nga xam ne am na ñu xam la li nga xam te man mii ci laa bokk maay jël sama responsabilité bopp jàkkaarloo yow combat te giñ naa ci yàlla ku ma ci jàkkaarlool komba bu wutul ñu la sotle da ngay daw. dënk foofu bëgguma kii. macha allah <laughs> wax dëgg yàlla man fi ne xamatuma lu ma ciy teg waaye daal li leer ba leer mooy bu ma déggee daal fi mu ne ndeysaan li may faral di wax saa su rek yaa ngi yaa ngi yaa ngi delloowaat wàccuwaay wi xam ne suñu borom mi bind doomu aadama bi cër bi mu ko jox yaa ngi ko koy delloowaat yaa ngi koy ñemeloowaat yaa ngi koy soññaat wax dëgg yàlla man loolu bokk na ci li nga xam ne mooy ambition bi ma gën a yitteel ci ci ci ci ci jotaay bi ak li ngay ngay dégle xanaa ñu bàyyi la rek nga jox kàddu yu mujj yi ak message bi ci askan wi rawatina xew-xew yi ñu dëgmal. waaw euh, réew mi day maa ngi sant bu baax maa ngi maa ngi gën a sant Baye Talla maa ngi sant. sant goo xam ni damay ñaan li yàlla def ci man ànd ak man ci sant gi maa ngi koy sant sant goo xam ni yëg naa ni e, yàlla suñ borom mi ma sàkk sax ànd na cant googu maa ngi koy sant sëñ Muntaxa yëkkati gi mu yëkkati doomu aadama yi jëmal leen ci xam-xam amul lu gën a rëy ci li nit ñi def ci jamono bii ci xarnu bii ñu nekk muy àdduna su ma sañoon du nit ñi dong ngay ñaan gudd fan gi ak kàttan gi mala yi dañ ciy bokk junne yeeg picc yeeg ñanaaw ñeeg yamel noonu yëpp yama ci yama ci yilif man te wér na ni am na yama ci yilif de ñoom ñëpp dañoo dëpp ci ma leen di ñaanloo kattan gu jóge ci suñu borom soxla ma gu jóge ci nit ñi jëm ci moom tey baddeeku ci moom waxtu wu ne ngir naal bi àgg ndax Sowetaas benn fi am muy boobu bu réussiree sowe na àdduna bu réussirul li nag moom ñun ñëpp lap xam-xam ñu mën a téye leneen mën mënuñoo téye naalam boobu nag nga xam ni la ko ko naal la moom ëpp naa xalaat bu xalaat lool de waaye yow def ci ñaan comme nii ma ci defee ñaan rek te sa yéene lu mu gën a rëy jëm ca yëkkati ko ak yokkute lay jariñ du la wàññi dara man su ma sañoon murit bu mu mën a doon loo am bala nga koo lekk da koy teg nee laaj li nga am ba xam ma lekk la wala ma jox la investir soo amee basiira te amit nopp dinaa la jël ma yóbbu ma fa moo ma gënal sa biir bii loolu nag bàttin la waaye cant googu daal cant naa ko santale ko mboolem kuy taalibe ku wékku ci sëñ bi ndax jëf ji kat li tax ñu indil ñu ko man maa ngi gëstu waaye ba léegi xamaguma ko loolooy kàddu gu mujj gi na ko ñëpp dégg ni ma ko waxee dégg nga bi dama ko bañ a waaye na ko ñëpp dégg ni ma ko waxee ndax xam naa ko man mi koy wax njariñ laa xëjul ci réew mi bu doon lenn njariñ dong nga am ci adduna bi actuellement nii fi mu toll nii dama naan la njariñ laa ngi Sénégal mi ngi Touba te muy investé fa ko sëñ bi jëlee nag ump na noppi sëriñ boo doon xool ba sa bëdi toj gis fa mun taxaa yenoo université bi la ëpp na noppi sëriñ bu bëgg digg wala muy laaj di xóotal xam ko boo doon xool ci sa kanam ba sa bëdi toj doo gis fa mu ko jëlee boo bëggee gis nag lu Sëñ Tuubaa yan nit te kenn jàppul ci yan bi demal ci université bi dugg toog njëriñul murid la nee naa la boo yoroon xaalis jëme ko sa bopp teg xaalis bi laaj ko te xam dara ni ko ma jox la sëñ bi mu dugal la ci université bi wala ma dugg sa biir bi loo gënal mun na bàyyi ma dem ci université bi ndax sa njariñ yow man nag maa nga cay woo gouvernement ak état ak murit ak tiijaan ak xaadir ak ñaseen ak junneeg malaayika njanaaw yeeg lu indil ba mu àgg ngay door a def sa bopp loolu rek mooy kàddu yu ma ji di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal ñëpp wér-gu-yaram di soññ ñëpp ci ñu jëm ci lii ndax la cay njariñ am na lu ma ca xam te yéene naa ko ñëpp aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan ci waxtaan wu am solo bi waaye ci leeral yitam waaye naka noonu itam ci soññe mucc ayib bi nga xamante ni soññe nga ko askan wi yëpp kenn war koo déglu war koo jël taataan ko itamit jël la cay jëriñi fi mu te ni daanaka jëriñ ci seen bopp rawatina université bu mag bii nga xamante ne wax nga ko léegi sëñ Muntaxa noo ngi ñaan baax a baax sa borom saxal ko te wéral ko te yeggali mboolem yéene yi nga xamante ne naalal na ko àdduna naalal ko umma islamiya bi sant gërëm ci jot gi ak xaj-xajal bi nga xam ne xaj-xajal nga ci jotaay bi ngir dimbali jaami yàlla yi nga xamante ni ñu ngi lay safoo di la tiitaroo di la ndamoo saa su ne di teewlu say émission ngir maanaam fi nga xamante ni yaa ngi leen fay jëmalaat di leen fa diggalaat muy suñu borom subhanahu wa taala xam ne lépp mooma kon ñu ngi lay ñaanal baax a baax suñu borom doole taxaw la doole guddal saw fan mboolem yéene yi nga xamante ne yow naanal nga ko askan wi tam sama borom defal la ci lu kawe sak njot sant bu baax a baax itam mbokk internet yi nga xamante ni ñi ngi lay topp saa su ne kenn ku ci ne fa mu mën a nekk rek lay bëggam ak yeneen raba bi itam yàlla na buur yàlla moom mi nga xam ne moo dul jeexal dara jàppandal lépp ci darajey Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam jox leen dig daje incha allahu rabbi ci beneen jotaay ak euh, Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye ci yeneen waxtaan jërë ngeen jëf wa salaam